c'est clair alors ñu ngi gërëm Ibrahima Pleya nee na ñu dégloonte pour que ñoom tam déglu bi yomb ci ñoom c'est important euh, ñu koy gërëm bu baax euh, Darden nee na yéen ñaar yow ak euh, Cheikh yéen bokk li ngeen di wax sauf que da ngeen di utiliser ay mots yu wuute ah donc la <laughs> problème est réglé il y a Euh, fait politique boo xam ne maa ngi ciy doog a jot euh, ñu ajandi tuuti coowal muuraay bi euh, parce que le député Abdou Mbow vient d'adresser une question écrite au mm. ministre Cheikh Tidiane Dièye mm. gannaaw lettre bi docteur Cheikh Dieng bindoon euh, ki nga xam ne moom mooy ministre bi di ko wax ci euh, marché wu ONAS yi ñu bëggoon a joxe euh, te mu décidé woon ñu jox ko ñeneen ñoo xam ne yàgg nañu liggéeyal ONAS mais docteur Cheikh Dieng ci lettre boobu muy wane ne daal ñooñu xëy na seen liggéey des naa mucc ayib alors Abdou Mbow député di laaj effectivement est-ce que lii docteur Cheikh Dieng wax noonu la demee et que est-ce que tam dafa am ay surfacturation ak ñi ñu buggoon jox marché yi moom ñi mu décidé ne ñoom la jox marché marché yi ndax ñooñu liggéeyaloon nañu ONAS ba ñu am ci satisfaction mais également est-ce que décision bi mu jël méngoo na ak code des marché publics mu mel ni Adama beneen euh, peut-être euh, mbir mooy ubbeeku ci dàq bi ñu dàq docteur. xam nga xam nga dàq bi dafa indi coow. bu rëy dafa am ñu génn yàq deru Cheikh Dia. oui. dafa ñaari organe de benn journaliste def live. beneen organe de presse génn titré yàq deram. wax ci kii ñii di wax mbirum oto ñii di wax mbirum surfacturation du dëgg moom mu génn bind ci page Facebook am hmm. ay nitam génn def ay précision te moo wax sénégalais ne leen Cheikh Dieng ba muy wax ci page Facebook am te y a un lobby de cinq personnes qui veulent accaparer les marchés en relation avec son ministre de tutelle du tey hmm. maintenant nag l'Assemblée nationale un député def na question orale pour qu'on apporte les précisions au sein de l'hémicycle c'est une très bonne chose mhm. pour ñu xam fu dëgg féete est-ce que Cheikh Dieng moo nekk ci dëgg est-ce que ñeneen ñi ñoo nekk ci dëgg c'est important sénégalais yi dañu soxla xam mhm. mais man li ma xam sur ce dossier là ma wax la ko tey mbirum oto amul amul déedéet ah kon fu wax ji jóge mbirum surfacturation amul est-ce que xam ngeen ni direction générale le directeur général de de l'ONAS amul oto amul voiture de fonction. amul voiture de fonction. otoom lay dawal Mamour Diallo oto bi mu yor otoom la doon dawal. parce que direction générale amuloon woon amu ko seen oto la ñuy dawal. ok aussi c'est un problème. Hmm. mbirum surfacturation tamit amul. parce que moom dans son texte il a fait le calcul. ok maintenant ping-pong bi bari na te ping-pong bi sax c'est pour préciser mhm. les déclarations d'une presse d'une certaine presse par rapport à son limogeage maintenant puisque coow jiw na le rôle de l'Assemblée nationale mooy lii. Mhm. contrôler l'action gouvernementale. les gens diront que Abdou Mbow yéex na ko def mais su ma sañoon sax du jóge ci moom day jóge ci seeni député ñoom par exemple un Guy Marius Sagna qui a l'habitude de poser certaines questions écrites ou bien des questions orales pour que le ministre vienne s'expliquer mënoon na ko porter parce que dafa jaxasoo ci bopp sénégalais yi qui a tort et qui a raison puisque Assemblée nationale dugg na ci je pense que le ministre par élégance va répondre à l'Assemblée nationale pour apporter les précisions nécessaires parce que nag coow li bari na de mais li ma ci xam man oto 80 millions amul loolu yàq der la te li ma ko wax un membre influent éminent de la coalition Diomaye Diakhar fay président moo toog il a donné l'information au niveau des médias. mais dégg nañu les militants ou les partisans de docteur Cheikh Dieng accusés des autorités au sein de la coalition mais bien sûr. yaakaar nga ne bataille politique moo ñu. xam nga xam nga xam nga xam nga lii dafa sa war a sax dépasser bataille politique xamu tax parce que dañu yàq deru nit ne dañ ko jox oto dañ ko doon soudoyer une voiture de quatre-vingts millions. ñu ne ko ne delloo oto bi mu. dem jaay oto bi ñu jox k quatre-vingts ah, millions yi. ça c'est te tey. comme accusation. journal boobu bind su ko Cheikh Dieng porté woon plainte ñu ne daf ko jaay doole. le journaliste def live ci page waxati la même chose wax tax ay surfacturation. Mm. te pourtant ñi ko doon bind ak ki bind ak ni journaliste ñoom ñoo bokk benn camp ñoo bokk benn camp et je ne comprends pas pourquoi yàq der bi. Mm-hmm. parce que nag ñu wax ko te dee. dans le secteur de l' assainissement du dund mooy dafa bëri lobby mm-hmm. yaa l' entreprise Delgas pour plus bi laay bañ et l' entreprise Vigas ñoom ñoo téye monopole bii ce qui s' est passé nag xamuma ko mais que député yi jël nañ ko nañ ci dox ba mu àgg pour ñu mun a régler les problèmes mm-hmm. parce que nag foofu la Sénégal war a toll je ne pas d' accord ci yàq der bi parce que li li tax ma gëm ni amul c'est parce que dégg naa ko ci wax te bokk ci coalition bi nee na ñaar yooyu yëpp dara amu ci dañuy yàq deram maintenant est-ce que dàquñu ko pour le protéger. moom Cheikh Dieng. waaw. pour le protéger contre qui parce que bëgguma accuser kenn. mais li ma ci xam mooy ces lobbies là ont traité avec le ministre. ah foofu la coow li problème bi diggante ministre bi la ak ak ak moom la. moo moom euh, moom moom moom moom. attribution bi Cheikh Dieng bëggoon a def. bëggoon def parce que deux autres. parce que dañu jàpp ni tawféex boobu. tawféex groupe tay Taysiir bi. moom moo ko moom parce que sa coalition se nomme Tawfekh. son parti son parti se nomme Tawfekh xaw ma naka. oui Tawfekh Tawfekh yaakaar. oui est-ce que yaa ngi comprendre son parti se nomme. parti Tawfekh. parti Tawfekh la tudd. ñoom ñu jàpp loolu moo tax ñu kase loolu pour jëkkati marché bi jox ko te ñee ñoo joxoon offre yi baax yi ñee dañu joxe woon offre yu bon yi yu tuuti yi des fois du ñu def liggéey bi ca war. loolu la ba Badiane wax ne ñee du des fois du def liggéey ba ca war. par rapport aux inondations. Mhm. donc dañ doon def ay taf yëngal rek moo tax mu préféré parce que c'est lui le directeur général. et puis nañu xam ni Cheikh Dieng il a une expérience de dix ans dans un dans un cabinet sur ce domaine là c'est dans son domaine. maintenant nag puisque député yi jël nañ ko en charge on attend la précision du ministre parce que nag ba coow li bëree ba léegi dégguñu ko mu wax mhm. ko wax dara tooñ ko na ci génne yéey ci yàbbi assemblée nationale ñu ngi joué seen rôle nañ ci yéey yàbbi et y a d'autres questions écrites questions orales yoo xamante ni député yi def nañ ko nañu apporter les réponses pour nit ñi xam fu ñu féete ñoo ngi xaar Cheikh assemblée nationale wu euh, les députés en tout cas dugg nañ ci coow li à travers Abdou Mbow mi bind une question